بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهداة الميامين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام مبكي جروب وقل جاء الحق ñu ngi leen di ku ci nekk ci turam am santam di am mbégte lool di dellusiwaat pour joxe sama participation ci débat bu am solo bi nga xamante ni am na te ki ko doon def Mouhamad Bousayri Sall euh, doon ko def ci Yazid euh, mu nekk nag loo xam ne c'est une première dans l'histoire du Sénégal waaye aussi des soufis ñu tudde seen bopp soufis ne ñoom dañuy woote dëggu ak dëggoo wootoo l'islam nekk benn bañ a bokk ci ay nawaasib bañ a bokk ci muxaalifiin yi bu ko defee ñu nekk ñoo xam ne ay munsifuun dañuy objectif dañuy maandu euh, ci li nga xamante lu am la ñu xamee leen suufiyanke yi ñoo xam ne dañu ñoom ñëpp dañu am seen intima ci Ali ibn Abi Talib alayhi salaam te imaam Ali boobu doomam boobu la rey waaw te nga gis ci ñi nga xamante ni seen turuq yëpp ci gën a bari ci ñooñu ci moom lañuy ñu wuyoo ci deret wala ci nasab moo waral tey ñu am mbetteel lool ci am ñoo xam ne moom mi nga xam ne mooy Mouhamadul Bachir euh, euh, sàll di doomu Cheikh Abad Sall di ku ñu euh, jox cër ci diine bi ak ci réew mi fii ci Sénégal amul dara lu muy def lu dul mu ne day défendre Yazid di défendre l'indéfendable koo xamante ne ni kenn mënu koo défendre même moom wax na ko sax hmm, ba nga xam ne moom ci jëmu boppam wone na ci boppam ne pourtant suufiyanke la waaye suufiyanke boobu dafa mel ni ci làmmiñ la rek waaye ci jëf dëgg dëgg dëgg ki ma gis ni naasib la bu nekk sama kanam naasib mooy koo xamante ne ni nasaba ala ahlil beyt alayhim salaam alxarb alquran di ko tudd aamilatun naasibatun tasla naaran xaamiya mooy koo xam ne dafay liggéey naasib mooy kuy sonn pour xeex benn mbir moo xam ne du ko gañe mukk bu ko defee naasibatun boobu coono boobu fu ma koy yóbbu mooy mujj safara ñu di ko fa lakk naasib boobu euh, mu am aussi ci sa biir wax bi nga waxee ba pare am na ñoo xam ne ñu ngi lay créer al couloir ay couloir ak i passage pour wan la ne am na ñu mbégte lool xëy na am na lu ñu soxla ci yow loo xamante ne ni amuñu ko feneen ñu bëgg ko ci yow ndax maqaama boo xam ne danga ko taxawee wala leneen lu demee noonu wala mu am loo xam ne dañ leen ci dominer ci wàllu xam-xam wala leneen ñu bëgg a làqatu ci ginnaaw dem jëli ay nit parce que ñun yàgg nañu gis loolu parce que yàgg nañ ci daaw bi noonu la ñu defoon ci jamono jële indil ñu conférence boo xam ne dañu dem jëli ay nit ci université de Médine dugal leen ñu def foofu conférence entre ñoom fii ak dakaar pour ñu mën ñoo def radd ñun chia yi waaye nag xam nga tashayyu muy chia dafa nekk euh, euh, euh, ker boo xamante ne keru ngoon la te ñëpp xam nañ ne suul ker du ko teree feeñ surtout keru ngoon parce que keru ngoon boo ko buggee suul boo moytul fala la magi ker di fekk muy timis muuraale la nga jeexal tàkk looloo waral mu nekk loo xam ne lu doy waar tey loo xam ne yëg na ko ay ñoo xam ne bett nañ ma parce que ci insaaf bi ma leen bi ma leen doon yaakaare tey ñu di ma wax naan ñaari récit moo am ci ci histoire ak bii moo dem te ñëpp xam nañ ne dans l'histoire y a ce qu'on appelle l'histoire muy ak taarix ak taxlili ak l'histoire riwaayi wala taarixul ahdaas muy histoire événementielle li indi histoire événementielle riwaay yi mooy ne dafay bari ay riwaayaat parce que taarix li ko constitué mooy lu ñu tuddee malxama muy épopée qissa wala récit ustuura wala légende xikaaya walla conte yaa ngi dégg walla wala sard lu ñu tuddee narration loolu moom mooy taarix moo tax ñu dugal ci taarix taxliil yi mu nekk taarix mu nekk taarix boo xam ne taarix euh, euh, euh, taxliil yi la muy histoire de histoire analytique pour que faits yi ñu di ko mën analyse parce que un historien moom day ñëw rek comme raaw yi la day ñëw joxe rapporter rapporteur la waaye ñeneen yi ñooy jëlaat xalaat bi xam-xam bi historiens yi les anthropologues histori euh, euh, euh, les les socio-anthropologues jàngaat yooyu nga xam ne ay fait historique la moo tax ñu di ko mu nekk loo xamante ne lu am solo mu bokk ci science sociale donc bu dee am na ñoo xam ne ñu ngi lay bëgg a créer ay croire man loolu bett na ma trop trop trop trop trop parce que dafa mel ni am na benn mbir moo xam ne bu ñuy waxante ci suuf parce que damay wax mu leer boo xam ne mooy ne attention am na benn affaire tendance bu commencé am ci groupe bi donc il faut que ñu jóg ci te ku ñu mën a indi rek koo xam ne mën na arrêter la mer par ses mooy mu jël géej bi téye kook ay loxoom ba loolu du am loolu dafay euh, nekk bu mu demee mujj ba am rek kon dootul nekk te waxul jaal xaq kon dëgg ñëw na waaye lii am mooy parparloo ak féetewoo ak leneen dëgg gi nga xam ne moo ñu war a séparé mooy alquranul karim dootuñu ci tegooti waxu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dootuñu ci tegooti te loolu bu amee rek musiba am ci groupe gi loolu baaxul donc moo tax dañu war a delsiwaat parce que suufiyanke yi li leen xamee moom mooy insaaf mooy objectivité bañ a war farfen waaye nag ñu ngi farag yàlla ak yonent bi ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ñu ñu wax ñu far ñoom euh, ci li ma dégg tey kii wax ko muy euh, euh, Mouhamed Boussoyri Sall war na tax képp kuy arabisant wala ngay wax ci diine nga dem jàng li ñu tudde science politique les structures du pouvoir mooy al haykalul sulta nga jàng maanaam rawaabit wala alaaqa bi am ci wàllu sulta naka lañ koy joxee muy la subordination lien de subordination lien de subordination mooy maanaam bu benn benn liggéey amee nga xam ne ab kilifa moo ko joxe ci autorité maanaam ci sultaam la ko joxe mu jox ko ki koy liggéeyee kooku day am pouvoir def def ordre bi ak directive yi nga xamante ne moom lañ ko jox ki nga xam ne mooy chef bi moom waru garam mooy mu contrôler l'exécution ak sanctionner les manquements de son subordonné maanaam mu mu mu mu mu mu contrôler ki nga xam ne maanaam jëf ji nga xam ne moom la ki mu sant mu def ko mu def ci nag mu continuer bu fekkente ne dafa def lu baax mu fay ko bu def ne dafa def lu bon du ko du ko fay. ñu ngi koy ñu ngi koy jàng ci science politique. ci la structure du pouvoir al haykalu sulta haykalu sulta moom mooy wax modd bi nga xamante ne bi namat wala hëy bi nga xamante ni moom la organisation du naka lay mën a nekkee moom la ñu tuddee en un mot système politique a nizam ak siyaasi nga xamante ni moom la dem ba indi Euh, euh, euh, li nga xam ci la développe dem li ñu tuddee la constitution parce que jamono jooju ci biir loolu aussi ci la am li ñu tuddee la dévolution di pouvoir maanaam naka la ñuy jëlee pouvoir man ko séddale jox ko ñeneen ñi comme un souverain légitime buur boo xamante ne ni bu légitime buur bu buy àtte nga xamante ne dafay jël pouvoir am mu jox ko koo xamante ne intendant lay doon wala régent lay doon wala mu nekk ci euh, gannaaw bi nga xamante ne ni créer nañu état donc état boobu que soit mu nekk état républicain wala état boo xamante ne ni dynastique la muy dem ci wàllu nguur tu vois donc loolu moom mooy li nga xamante ne structure du pouvoir al haykal as sultawi donc loolu bu fekkente ne ni am na defe naa ni ñi jàng gis nga ñi gis nga débat bi bu doon ñi jàng tubaab la jàng droit tey kon du du àgg ci deux mots parce que ñooñu dañu am méthodologie benn méthode scientifique benn manhaj boo xamante ne ilmi bu ñuy demee mais ñooñu demewuñu ak ay passion wala ak ay sentiment gis nga da doon doon na doon na doon na clair lool yow euh, mi nga xam ne doon na neex trop débat bi nekkoon ci débat boo xam ne dafa méthodologique mais malheureusement jàngoo lan mooy état jàngoo politique jàngoo nan la réew yi di doxe moo waral nga ñëw nga indi lii jaxase ñoo xam ne ay muhaddisiin lañu ay mu arrixiin bu ko defee nga lëñbët nit ñi mais heureusement ci sa biir wax euh, feeñal nga sa bopp bu baax a baax yow bu che bu sori ci noo ko feeñalee nee nga ju rey imam Hussein moom moo tax ñu ñu euh, ñu suyuti wala Ghazali bañ a condamné imam Hussein waaye dugg bi nga xam ne armée Yazid dugg na ko Médine moom moo tax ñu violé ñu ñu ñu rëbb Imam Hussein te am na ñaari catégorie ñu koy rëbb ak ñu ko dul rëbb ñoo xam ne ñoom ñaanaluñ ko xam nañ ne dafa bon donc ñaari catégorie yooyu yëpp maanaam dafa am faible intensité ak moyenne intensité maanaam ñaar lañu yu wutee ni ko bañee waaye teewul bañ nañ ko waaye gis nga boobu bi mu duggee ci dafee istibaax Madina violé na fa dix mille ñoo xam ne ay vierge lañ da leen dañ leen dévierge waaw xanaa imaam Hussein moom bokkul woon ci Médine maamam nekkul woon Médine mu nekkoon rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xanaa maamam boobu yàlla waxul woon ci moom ci alquran inna allazina yuzuuna allaha wa rasulahu laanahum allahu fi dunia wal axira wa adda lahum azaban azaban muhina mu ne ñi nga xamante ne ni dañoo maanaam di lor yàlla ak yonentam bi yàlla rëbb na leen ci kaw asam ci kaw rëbb na leen fii ci àdduna ak yow ma ak bés penc te préparé na leen mbugal boo xamante ne bu soof xanaa ñi la bëgg a wax ne waaw rëbbante baaxul ak ay nañu joxantey loxoog nañu baaxanteeg nañu nekk benn gannaaw bi ñu tuuree deretu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dara looy wax lu dul loolu nañu nekk nañu def benn ak ñoo xamante ne ay nawaasib lañu tu loolu ruslu na trop waaye nag gàcce du rey léeg-léeg waaw na ngeen ma baal ci ton bi parce que provocation dëgg dëgg dëgg dëgg la moom Mouhamad Busayri def waaye ñun fii dara feesul sunu bët nag lu fees sunu bët mooy alquran moom mooy lislaam mooy alxuraan mooy waxu rasulullah sallallahu ak njabootam ak ñi nga xamante ni seen wax dëppoo naa waxu rasulullah parce que alxuraan daf nañ nañu topp waa kër yonent bi yonent bi raw nañu topp waa këram moo waral gis nga dafa am benn stratification sociale catégorielle benn tabaqa boo xamante ne ijtimaiya boo xam ne dafa am ci diine almuxaalifuun yaani almuxaalif li li jahlihi wal muxaalifu li xawfihi wal mu muxaalifu li duufihi mooy maanaam koo xam ne dafa wute c'est un opposant il s'oppose par ignorance dafay réer dafay opposé parce que dafa ñàkk xam mu am koo xam ne dafay opposé wu parce que dafa ragal parce que dafa am ay privilèges ak i prébende yu mu soxla ak i avantage ci nit wala ci pouvoir mu bañ opposé wu ak moom parce que bu opposé wu ak moom li mu bëgg ci moom du ko am wala li mu am dana yàqu mu am opposant boo xamante ni mu xaalif euh, li do fii la c'est un opposant parce que amul doole opprimé la oppressé la mais bu amoon doole dina ko dindi daf koy mettitlu rek ci xolam mu am ay na nawaasib ma waxoon ko léegi aamilatun naasibatun tasla naaran xaamiya ñoo xam ne dañoo dëkk xare waa kër yoon ci yàlla Muhammad sallallahu waaye duñ ci am ndam mukk tey na nga xool imaam Hussein alayhi salaam tey moom am na bàmmeel am na ñu koy siyaare waaye Yazid amul ku ko siyaare te kenn xamul sax fan lañ ko def nga xool ci loolu mu am ay munaafiquun munaafiquun yi ci biir mu am ci ay xawaarij yoo xamante ni ñoom ñëpp li leen boole seen mushtaraka maanaam li nga xawaat xawaasi mushtaraka seen dénominateur commun moom mooy bañ rasulullahi ak waa kër rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tey jullit war na kersawu war na war na war na rus surtout ci ñun muy chia wala ci koo xamante ne dafa tudde boppam ne suufiyanke la muy ànd ak ñoo xamante ne ay nawaasib lañu ba ba ba deewu deretu imam Hussein bi nga xam ne mooy deretu rasulullah yi nga xam ne alquran nee na ñi nga xam ne dañuy lor yàlla ak yonent bi mu mel ni kon bu fi yonent bi nekkoon nañu supposé ndax dina dina kooku reyu imam Hussein du nekk lor ci moom ñoom ñoo moom moom moo di wax mbokkam bu ñu ko reyoon tey mbokkam rek bu ñu ko reyoon kenn rek nga gis dina changer histoire bi mu nekk noo xamante ne ni du ko du du ci nekk na rëbb naa ko dina dina saaga boo moytuwul sax bu fa nekk dina jël fetal rey kooku ci Sénégal lañ dëkk xam nañ li xew lu bare bare bare bare bari ñun nag dañuy jàng luñ tuddee maarifatul adu ci géostratégie mooy la connaissance la reconnaissance de l'ennemi nga xam sa noon mooy kan naka la bindoo naka la mel naka lay waxee tib ka ni nga xamante noonu lañu ko alquran jàngale baada audu billah min sheytan rajim bismillahi rahmani rahim ida jaaka almunafiquna qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaalamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaazibun et pourtant wax yi nga xamante ne ni moom la naafiq yi wax ne yonent bi yaay yonent dëgg la yonent bi mooy yonent waaye gis nga yàlla mi ngi naan dañuy kàcc li ñuy wax du dëgg parce que ci seen xol dafa waroo moo tax imaam Hussein ngeen ànd ak moom am na quatre cent à cinq cent millions yoo xam ne tey ci adduna bi yaa ngi Dubaï Dubaï tey ñi fa am ëpp xaalis chia yi la infrastructure yi ñu fa am état état wu Dubaï rek moo ko fa am beneen bu dul groupement islamique boo xamante ne religieux diine l'islam amu ko fa li fa chiite yi am ci Dubaï donc donc boo boo yeboo rek nanga nelaw parce que ñun xamante nañu bu baax a baax a baax a baax wër nañu dox nañu gis nañu duut nañu suñu baaraam ci yu bari Dubaï boobu ngay wax tey chia ay quatre cent à cinq cent millions lañu foofu ci seen jëm bopp am nañ fa ay mosquée yoo xam ne waa dëkk ba sax amuñu ko fa ay hôpitaux yoo xamante ne lu dul état ba amu ko fa la ko indi moom mooy doole Imam Hussein parce que Imam Hussein moo forgé la structure historico socio politique et religieuse du chiisme mooy ay helk alxaykal al taarixi wa siyaasi wal ijtimaai wa diini li tashayo moom moo joxaat beneen pënc au moo joxaat beneen pënc à l'islam moo joxaat beneen pënc li nga xamante ne ni mooy jàng jànglinu maamam ba li nga xamante ne ni mu ngi doon wax lam axruj ashiran wala batiran wala mufsidan innama xarajtu li islaahi li li li li li islaahi siirata jaddi wa amura bil maaruf wa anha anil munkar mu ne mu ne mu ne li talabil islaax mu ne man génnuma ndaxte damaa bon génnuma ndax damaa bëgg ñu ne gis leen ma génnuma ñu ne wala damay yàq waaye dama génn pour defar di islaax bi talabil islaax li talabil islaax muy bëgg réformer la réformation de la société et puis li amura bil maaruf ma digle lu baax wa amura anil munkar muy ma tere lu bon wa asiiru siirata abi wa jaddi ma topp yoon bi nga xam ne moom la sama baay tracé jële ko ci sama maam salaamullahi alayhima xam nga ne lii dara gënu koo leer donc bu ñu yeboo rek xam ne tey actuellement gis nga tendance bi c'est une tendance irréversible schisme kenn mënutu ko arrêté muy ci Sénégal fii muy ci partout dans le monde képp kuy génne di suivre la situation géopolitique mondiale da nga xam ne mbir mi pare na les des sont jetés waaw waaye nag li ñuy wax rek mooy ne lu duuf ak lu neew yi du benn lu duuf ak lu néew yi du benn waaw donc moo tax yow tey bu fekkente ne ni ñëw nga amoo loo wax lu dul di ñu tuddal ñoo xam ne nee ñoo ñu wax nañu lii ñii wax nañu lii ñii wax nañu lii parce que ñoo ñu ñoo defar tey sa affaire te pourtant li nga ci wax te a beaucoup li l'histoire parce que li nga wax nii am na ci ñoo xamante nee nañu ay borom xam ne ñu ngi ci groupe bi mais dañoo jaaxle parce que jaaxle bi mooy ñoom tey lañ ko doog a dégg tey wax nañ ko donc loolu problème la te pourtant teg nañ seen bopp ay jàngkat donc li nga indi kooku sa responsabilité la yow ak sa borom donc ñun li ñu bëgg a wax mooy bu Yazid waxee ne moom euh, euh, euh, rey ñu ko Ibnu Kasir wax ko mais Ibnu Kasir dafa nekkoon te histoire officielle la doon dawal te histoire officielle ñëpp xam nañu c'est l'histoire des vainqueurs mooy ñi gagné nekkul l'histoire des vaincus histoire ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy ñi gañe ñi ñu gañe lajjoor dañ la naan ces temps fii bu tubaab yi di bind ñoom bu ñuy bind ñoom tubaab yi pour ñoom fu ñu dawee dañu naan ils se sont waaw donc loolu la loolu moom mooy histoire bu kenn làqatu ci ginnaaw naan ay récits historiques nag ay dafa am ay version ñun dañu jàng nag dañu xam te kenn mënuñu ndax dox ci suñu maayin suñu xel xuloowuñu waaye nag ñi ngi fi nag di xaar donc yow li nga xamante ne ni mu yow moom nga wax muy yow bu sari yow war nga rus en tant que li nga xam ne mooy tasawuf ngay jële ci ibnu taymiya même bu dee ci wàllu xam-xam la sax waaye sa xam-xam sa ngëm ci war a bëgg imam Hussein ci war a bëgg ahlul bayt waroon na lu yóbbu nga dem ci yeneen source yoo xamante ne ni du nekk ci ibnu taymiya bu ko defee àddinañ laa ah, kii musul saaga imaamu ali di bàyyi imam Hussein musul saaga xasan di bàyyi eh, magu imaam Hussein musul saaga imaam Hussein waaye koo xam ne ci la dëkk ay taalibeem ci la ñuy dëkk loolu dafay doy waar ak siit yi ah dara safuñu nag ñun li ñu saf mooy li ñu gëm mooy ahlul bayt ci ñu koy démontrer képp koo xam ne nag am nga melu naasi bi wala mu xaalif wala xawaarij wala munaafiq ñun ci sunu kanam di nga taxaw suñu sunu kanam même bu dee da wuyoo nga ne chia nga wala nga ne ahlu na nga wala suufi nga dinañ dinañ jëf dinañ ko jëflanteeg yow ci xam-xam moo tax am nañu gàcce trop ci koo xam ne ni ñu def waa kër yonent bi jooyoo ko woo ko lu dul ngay défendre yow bu sori ki nga xam ne moo tuur deretam loolu metti nañu trop trop trop trop trop trop waaye nag sunu mettit ci yow amul benn difficulté parce que ku rey waa kër yonent bi méttitu ñi ànd ak ñoom wala bokk ak ñoom deret wala def intisaab yi ñoom kooku du dara ci ñoom parce que ñu ko jekk woon ne ko xat titren bi kii nga xam ne moom mooy Abdul Manaaf moom moo jur Haasim jul Abdou Sams yow da nga ne ay seex lañu ñi ëpp nañu seex ñi ay siyaamos lañu siyaamos moom mooy ñoo xam ne bi ñu juddoo dañoo taqaloo bi ñu taqaloo tànku Haasim dafa nekk ci jëwu ki nga xam ne mooy Abdou Sams abdu shamsu boobu moo doon cheikhu hashim bi ñu leen taqalee ci seen chirurgie ci jamono yooyu ci lañu wax ne ñii day ëllëg dina mës am problème seen diggante ba deret dana ci tuuru noonu la deme hashim jur abdul muttalib euh, euh, euh, abdul muttalib jur abdullah abdullah jur yonent si yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdul shams jur umayya mu amoon ñaari doom muy jandab jandab jandab dul Ousmane Ousmane ak ak ak Abu Sufyaan nga xool ki nga xamante ne ni moom mooy abu abu abu abul as muy beneen daw mu jur mu jur xakam xakam jur marwaan donc loolu l'histoire la boo xamante ne bu clair foofu la opposition yi amee ma épargner leen ci histoire bi li tax banu umaya mujj dem ci fi nga xamante ne ni moo doon euh, euh, Euh, fii euh, euh, Damas muy muy muy Suuriya parce que dañu doon xëccoo li nga xamante ni siqaayatal xaaj wa imaaratal masjid maanaam jox respecté maanaam gérer ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ñi war a joxe ñi nga xam ne ñoom ñooy aji màkka yi waaye aussi lépp loo xam ne dafa dem ci réfection ak defar mosquée bi ñoom ñoo ko yor bi nga xamante ni jongante nañu ñu mbir mi dem ci Hachim mu metti lool ñële ñu ne nag kuñ ci gañee da génn looloo génne banu Umayya ñu dem fële euh, ci Suuriya waaw loolu nag bi nga xamante ne ni am na ci pexe ba bi Ousmane ñëwee euh, El Hadji euh, Cheikh Habib Ndiaye mu ngi ko doon wax ci histoire parce que ci daf ko jële aussi ci kutubu taarix yi nga xam ne yépp ci ahlu sunna la mais ci jamono Ousmane ci la problème yi commencé am ba lii am am ba mu agsi ñu assassiné ko ba nga xam ne mbir mi ñëw ci Yazid ah, ci ci Muawiya ñoom Abdullah ibn Abi Sarha nga xam ne yonent bi bu nekkoon ak ay soxnaam da leen da leen daf ko doon yërlu mu bokkoon ci kutaabul wax yi nga xamante ni dem na ba yonent bi ne ku ko gis na ko rey yonent bi bi nga xamante ne gis nañ ko ci kaaba gi kero bi nga xam ne yonent bi gis na ko mu doon xaar ordre bi ñu ñu def ko mais malheureusement kenn def ko ñu ne yonent dañu doon xaar nga piis yonent bi ne ñun duñu wokk duñu piis ñu ay yonent lañu parce que ordre amul beneen lu ko dindi loolu moom moo tax il faut que ñu del ci waat defaat raison garder Ghazali bu ne Yazid euh, euh, euh, jullit la lii la ak li Yazid génn woon ci milla Yazid réclamé woon ne yéeféer la waaye dafa jëf jëfu yéeféer et puis du Ghazali moo ko mën a setal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak Ghazali ku gën yonent yàlla imaamu Ali ak Ghazali ku yàlla Muhammad ak Ibnu Taymiya ku gën ñooñu bu dee dañuy dañu koy gënale alor que yonent yàlla Muhammad mi ngi doon jooy Yazid ci karbalaa avant ko muy ñëw mu jox xaaruura bi muy bouteille bi jox ko umu salamata def ci suufu karbala ne ko bu fekkente ne ni ñu xonq na ci nga nga xam ne Yazid rey nañ ko ci aj euh, ci ci ci te dëkk ba tudd al karbu wal bala njàqare ak bala donc defe naa ne suul kel euh, maanaam euh, du ko teree feeñ moo waral ñun suñu référence alxuraan la sunu référence yoon ci yàlla li mu ci wax la sunu référence nit ñu baax ñi liñ ci wax la waaye di ñoo xamante ne ni du ñu ñoo xam ne euh, euh, euh, ci wàll bi ñoom ñooy setal Yazid mu mel ni seen wax waxu alquran la kooku duñ ko duñ ci d'accord ñun ku koy réfuter da indi xam-xam bu leer xam-xam boo xam ne da koy teg ci alquran ak ci sunna te ñun chia yi mën nañu wax lu mu mënti nekk waaye ñun fu ñu leen ma sa waxee indil nañ leen ay référence yoo xamante ne ni textuel coranique wala yoo xamante ni prophétique lay doon waaw yoo xam ne du nekk sax ci ñun waaye ñaari groupe yëpp dañ ciy d'accord muy chia ak sunna loolu nag gàcce ma ci chia donc fi may jeexale rek mooy maa ngi wax ki nga xamante ne ni mooy Muhammad al Busari bu ko dara jaral yonent bi féete fii mu féete ca wàll ba parce que bu ko defee rek dina ñàkk ci àdduna ñàkk alaaxira tey boo dee xoolee tasha yo yow mi nekk foofu yaa ko gën a mën a comprendre ñu nekk fii tey ci Sénégal doole bi gën a bari tey ci Moyen-Orient ñoom la ak ci Proche-Orient mu ci wàllu xam-xam ba dee ba ci xam-xamu diine li ñu génne ci ay boromi xam-xam ci production intellectuelle amul benn école islamique bu ko def te nag aussi ñu am privilège ñëpp ko fu ñu far ñoom ñu far ak rasulullah ak njabootam kenn ku nekk jël sa bopp tuddee sa tuddee sa bopp beneen tur ñoom ñu tuddee seen bopp chiatu ahlul bayt yéen ngeen tuddee ko leneen donc gàcce ngaalaama mais nañu def attention nañu def attention euh, ci euh, euh, suñuy passion walla alal wala ay privilège fexe ba dévier ñu ci yoonu yàlla ñu topp ñoo xamante ne du ñu baax nag ñu ñu ngi fii eh, di xaar nag réponse yi ak li nga xamante ne ni moom mooy eh, réplique yi eh, te bu ñu sañoon kii di Boucheri yi mu del siwaat parce que ñun ñuy waxal ay ay ma lañu dañuy jiite ay milliers de personnes waaw amuñu temps yor suñu bureau de consulting nekk ci yeneen ak yeneen ak yeneen waaw donc ëppalewuñu ko ëppalewuñu ndomb tànk donc nag ñoo wàcc si ci géew bi bu ko defee débat bi continuer te maa ngi ñaan Boubacar bu mu ko tëj mukk fii ba un à deux jours bu ko defee luy leer leer maa ngi santaan ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi jégglu ci style bi parce que style guerrier la parce que moom la ñu indi yonent bi dafa xeex vingt-huit razawaat te moom mënoon na di négocier mu dal waaye comme ni ko ni ñu koy jàppee yaakaar ne nit la woon koo xamante ne ni boo ko toppee Muhammad wala leneen mu ne la Camara Yille wala Aydara Karara yor kurusam ak yooyu non non nekkul woon un quiétiste da doon xeex lu bon pour jëmbat lu baax donc ci tànk boobu la jullit yëpp war a am donc maa ngi xaar euh, li nga xam ne moom mooy réplique yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu